jàmm. maa ngi sant naka liggéey beeg marché bi. ñu ngi ci kawam. naka bi mbaa mi ngi dox comme d'habitude. marché bi moom tane rek tane rek parce que dëkk bi moom ñëpp a xam ni mu demee dëkk bi moom mu neexatul fenn waaw. waaye nag ñu sant yàlla comme ñun marché bi lañ am moom lañ tàmm ci loolu la ñuy yëngu. yaa booy marché bi ngeen am moom ngeen tàmm moom ngeen yëngu yaa booy ndax élection yi commencé temps jamono ji ak violence gi seetlu nga ko. waaw loolu moom seetlu nañ ci ànd nañ ci tiit ndax képp kuy kuy jaboot te yor njaboot rek te jaboote ay ay nit rek yaa ngi ciy tiit ndax euh, dara gënta metti lu dul saay bu ñu xëyee ne dégg ñu ne rey nañ nit dara tuuru na fii ak fii ak fee te ñoom ñi ko jiite gisoo ci kenn koo xam ne dina jóg jiital njabootam ay njabootu jàmbur rek la ñuy teg ci kanam ñu leen di rey ñu leen di jam ñu leen di gaañ amu ci kenn kuy jog jiital doomam wala jabaram wala jarbaatam amut kon ñun dafa dafa jot ñun ñu am fulla am suñu matu bopp waxtaan ak suñu njaboot te téye leen parce que ñoom ñi ñuy topp ñu ñu leen di jàmm ak tamit nag suñ demee ba falu xamatuñ leen kon dafa jot ñun ñu xam xam suñu bopp xam ñun ñu ne ñun ñoo moom Sénégal ci seen ñun ñoo dëkkee Sénégal après élection ñun ñoo fiy des ñoo féete ñoo ñoo fi ñoo ñun ñoo ñu desee suñu senegal daal kon jàmm rek moo fi xaj yaa booy dëgg la jaamu rek a fi xaj yow mi yaay te yor njaboot tey boo doon conseillé xale yi ànd ak candidature loo leen di conseillé. dara lu dul nag ñu ànd ak dal te xam ne ñi ñuy topp ñu leen di xeexloo xeexloo wuñ seen njaboot xeexloo wuñ seen jabar xeexloo wuñ seen doom xeexloo wuñ seen i jarbaat kon ñoom buñ nangu ñu leen di utiliser di leen def armu di leen xeexloo mën daal loolu lay loolu laay conseillé xale yi mën daal loolu kese laa leen di conseillé ñu ànd ak dal su heure su bës ba jotee kenn ku ne am nga sa armu nga dugg boo duggee nga jël sa électeur nga dem xool kala neex nga tànn ko boteel ko loolu daal boobu laa gis muy armu bi gën a gaaw. yaa booy ñu ngi lay jaajëfal tey boo doon voté koy voté <laughs> man moom su ma duggee si urne ya dinaa xam ki may